tay li ma neex ci ndaje bi moy chaque commune de Bambey dafa yónnee ay délégué ci ay ndawam kon c'est-à-dire c'est le département de Bambey en miniature Mamadou Ndiaye félicitations nuyu bu baax le maire Aziz Diom ñu ci coalition walou, ñëw di jappalé président Macky Sall valier le maire Assane Dia gagné ci coalition Yewwi ñëw di le président rallier aujourd'hui tous les maires du département à 99%, vingt dix ci jappalé le président Macky Sall dama bëgg ñu xamné tay tey am nañ lu jafé déplacement ministre d'État Mamoussala Sall yombul monde est réglé à l'aide de Macky Sall pile inch'Allah Rabbi nous allons gagner dinañ gagner 12 communes yëpp jël majorité bu maga maga mak a ko ci loxoy président Macky Sall. xawma kan xawma ma ku leen défendrul wayé Mahmoud Saleh mi ngi len di défendre et lii may wax ni man xam ngeen mo bu baax du ragal kenn ginaawam Mahmoud bu ko defuloon damay taxaw fi ne ko defoo bu taxaw bu defuloon dara ci Bambey damay taxaw fi ne ko defo parce que man nit amul kenn ko xamné ne jaral na moy wax lu lu lool. mais je vous dis sincèrement une fois Mahmoud a pris le dossier de Bambey que ça soit l'audience avec le président de la République dem diko défendre ci table président de la République. ma nuyu son excellence l'ambassadeur itinérant Elagi Abdoulaye Dia

ni ko El Hadj toutes les 12 communes sont représentées et Inch'Allah, allah fi commune par commune ils vont aller faire des porte à porte parce que xam nañu lu ñu war a def te dinañ ko def bu neexee yàlla. di aussi collaborateur di ministre Mor Ngom di nuyu sama xarit sama rakku bopp am ci moom cofeel lool sa xam taxawaayam ci lépp lu.

Je reprends à mon compte tout ce que Mor a dit sur lui. C'est un garçon engagé, militant, qui semble ne pas trop être intéressé par les histoires de la vie. vous ma demee ci président Je ko wax li que fekk Bambey dal na xel. J'ai trouvé une jeunesse mobilisée et des responsables unis qui sont dans une symbiose et le lien entre la mobilisation de la jeunesse euh, a ngi suivre li xew ci Réumi. Il y a ngi qui li xew ci àdduna bi rek dans notre sous-région rek mën le Sénégal est le seul îlot de paix qui reste li ngeen wax nag ak li ma wax dégg nañ Mom, c'est le premier avocat de Bambey. loolu lu ñuy sedd mais dinañu gën a bàyyi xel dinañu xayma niveau bi nga xamante ni moom la fi xëyu ndaw yi ni apprécier ko évaluer ko xool fu mu toll la ngi ciy et en principe am quota bu nga xamante département Bambey moo ko moom. kon tey soo ñëwee fii ci Bambey suñu mbékté lay doon ta nak dinañ rassurer né lépp lo xamante bëgg nañ ko tay so yeggee Dakar le président Macky Sall dina ko xam ndax nonu nga nekkee ci weex dem diko conseiller di peaufiner ay stratégie yu ko mën may ndam kon yalla na yalla guddal sa fan yokku sa taxaway ba lépp lo am ci Sénégal yàlla yeggale ko je vous remercie merci. monsieur le ministre d'État monsieur le ministre Mahmoud Salé monsieur le ministre conseil spécial du président coordinateur départemental, M. Morngom, Son Excellence, M. Elaj Abdoulaye ambassadeur itinérant, président du comité électoral départemental de Bambay, pour son rôle également fédérateur. Mesdames, Messieurs, les délégations des jeunes venant des 12 communes du département de Bambay, je voudrais vraiment vous remercier de la forte mobilisation ou bien si vous me le permettez nous allons ko olof parce que le message bi message la campagne électorale monsieur le ministre d'État le ministre le ministre conseil spécial du président le maire le coordonnateur du comité électoral nous ngi parler di nuyu di leen sant bu olof daf qui ku mission bi investir son excellence El Abdoulaye Dia ku nek xam na ne Bambey gi